بحمد وشكر إلى ولي bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla bu baax di rafetlu ginnaaw bi nga xamante ni siyaare nañ bërëb bu tedd bi bu dee ci wàllu yég yëg am naa ci yëg-yëg bu kawe lu matul juróomi fan siyaare naa lu mel nii ñu ko doon defal yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara lu mat juróomi fan wala juróom benn fan euh, doxalin yi dana wuute waaye lu mel nii la mooy fu ñu dajale lenn ci ay bagaasam fu ñu jéem a jàngale leen ci ay jaar-jaaram ñoom ñu ngi ko tuddee Muthafu Sira Nabawiya tegaatuma ci lu mat ay bis ñëw fii ci Sénégal gis bu ni mel ñu koy defal Cheikhul Khadim fii ci Dakar loolu yéem na ma lool da nga ci xame it rek jokkoogu Serigne Touba jokkoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne jawrinam la woon ci yéemu waate du loolu mooy musée yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu ma visité ci lu ma tudd ayug bis ñawaat teg ci bu sëñ Touba euh, ñoom autorités yi Arabie Saoudi xamal nañu ne xam nga day toxu yóbbu woon nañ ko Maroc jamono yi ma nga Madina dañ koy indi Dakar fii moo ci topp nga xam ne jàppale ne kon bu ngeen génnee seen bagage yi bagage yoo xamante ni lu jëm ci yonent bi moo fiy dugg lu xaw a rëy lay doon nee nañ ma sax président de la république xamle na ko yëgle na ko ci conseil bi weesu ñaan na leen ñu andil ko ko fii loolu it xam ngeen ne beneen yëg-yëg bu kawe kawe la da ci gën a xamee rek sëñ Touba ak yonent bi ni ñu jokkaloo li ci tegawaat it mooy lii bari na njariñ lool ñun sëñ Touba la ñuy roy sëñ Touba ci yonent bi la ñu royloo ak saxaaba yi xam na ne saxaaba yi nii lañ defoon yonent bi bàyyi wuñu woon lennam ni mu doon lekke ni mu doon naane ba bagage yi mu daan jëfandikoo léppam karawam bi ma fa gisee sama xel dem na ci lool léppam rek lépp loo xam ne ma na ko ci moom te ñun nag moo tax baax na kon ñun tam li ñu sëñ bi daan wax ne ñoo ñoo seen i bàyyi ci diine ñu teg seen tànk ñu teg suñu tànk ñoom fañ ko teg mooy fas yéene itam sëñ Tuubaa duñu ci bàyyi dara da ngeen gis borom xam-xam yi taalib yi ñu tudde shamaa'ilu rasul shamaa'il mooy yonente bi melokaan yu mu daan dundee lépp bi muy dund bi ñu ko tàmbalee gis ba niñ ko noppee gis incha allahu taala projet bi foofu rek la jëm mooy fexe ba sëriñ bi rek ak la aju ci moom lépp lépp rek bi ñu koy tàmbalee xam ba bi biñ koy noppee gis lépp luñ ci mën a am rek ñu dajale ko incha allah lu am am njëriñ lay doon lu ñuy dolli lay doon surtout sàkkatu xam-xam yi lu baax a baax a baax lay doon ci yokk xam-xam ñi ngi sant bu baax baax ñi taxawee lii bëgg ci ñoom lool lool wax dugg yàlla. Mauritanie moom ak fii dañoo lëkkaloo lii dëggal lool rek foto bi ñu doon sëñ Mamboor ñoom doon ñu wan léegi am na ci Mauritanie yu ci nekk. am na koo xam ne ñoom Mauritanie sax ñoo ko xàmmee ne Cheikh Abdoul Wadoud la maam mi la ci ñenn ca ñooñu nga xam ne sëñ bi moo ko fi jamono yi ñuy defar jumaa njaareem ji bagage yi it bari na foofu lool gaal gis nañ ko fa waa kër Cheikh Sidi am nañ ko gis nañ fa lu mel ne kafteer niroo naag bi ma gis fii lool ren ji ku baax ku bokk ci ñoom Sidi Mouhamed Ibn Cheikh Sidi andil na sëñ Muntaxa ay téere waaye andil na ko lenn loo bokk ci tegu fas dafa xat xam naa ca yàlla dogal waajtaay yi xaw a jàmp waaye amu mi ngi ak bi nag jamono yi toll am na ku ko andil foofu la jógee ay dàll am na fa defe naa bu ngeen dee xool reportage yi def ci ginnaaw di ngeen ko ci gis ci Cheikh Mouhamed Ibn Cheikh Omar bu dee mbind la fa am kenn xamut nu mu toll Euh, foofu bagage fa am bari na li koy gën a dëggal rek photo yii gis nañ ci kenn koo xamante ni ñoom waa Mauritanie yi ñoom ñoo ne xam nañ ko bu baax a baax muy Cheikh Abdoul Wadoud yi dëggal loolu it Cheikh Abdoul Wadoud moomu bindkat yi borom xam yi nee nañ jamono yi sëñ bi defar jumaay njaareem ji wooloon na ko mu ñëwoon fi xam naa dafa nekkoon ku xereñ ci génn xibla ak yu mel noonu moo tax xam naa loolu la ko doon doyee bokk ci it Cheikh Abdoul Wadoud taalibe sëñ bi la woon nekkoon ko ko jege sëñ bi bi mu amee ngànt sax ci dem Makka bokkoon na ci délégation bi nga xam ne yabaloon na leen ñu dem ajali ko Makka bagage ya nekk rek bari na wax naa leen ni gis naa gaal mu ngi fa nekk kenn xamu nu toll. incha allah incha allah téere yi fa nekk kenn xamu mu toll. gis nañ fa laabu fas yoo xam ne sëñ bi war na ko dem butu limit ci lu yàgg boole ci ci lu jox na ko sëñ Muntaxa damaa ragal ne dafa xat rek waaye sax buñ ko laajoon jox ñu ko ak bagage yeneen yu bare bari yoo xam ne fa nekk ay dàll gis naa ko fa ci Mouhamad ak kër Mouhamad iñu Cheikh Omar gis naa fa kafteer wala ñaari kafteer am na lu raar sax loo xam ne bëriwut luñ koy gis di ko tuxale ci señ bi xam naa ci njëlbeen la muy kurus gis naa ko fa koo xamante ni yor na ko fa la fa nekk ci bagage bari na bu dëgg la gisuma ko fa waaye yeneen yi ëpp yëpp gis nañ ko fa waaye loolu danga nga ci xamee rek lëkkaloogu sëñ Touba lëkkaloogu histoire waa Mauritanie yàgg na lool lool xam nga daanaka moo tax loolu xel nangu na ko daanaka bu dee mbind nag la fa nekk moom bari na jàpp naa ne xaaj bi dangay ngay jàpp ne nekkut fii ak ay taalif ak yu mel noonu loolu moom bari na euh, Imam Baye Cheikh Awa Balla Guèye waaye tamit ak sëñ Moutala ñoom ñëpp ñëw nag tey ci li nga xam ne moom mooy Euh, ci musée bi tey bi nga ñëwee danga nga ñëwoon visiter si waaye tamit am loo ba xam ne danga ko dolli tamit mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ñëw fii ñëw di fi visiter si mhm. euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu baada bismillahi rahmaani rahim noo ngi nuyu taalibe yëpp euh, di nuyu njabootu lislaam gépp njabootu senegal yëpp di wane sunu mbégte ci feeñ gi nu feeñ fii tey ñëw ci musée bi ak liggéey bu rafet bii nga xam ni bokki taalib yi jóg nañ di ko liggéey te lépp di feeñal mbirum sëriñ Touba ndax mbirum sëriñ Touba feeñal gi dafay soññ ab taalib bi ci mu bëgg a xam kan mooy Serigne Touba ak it sëñ Touba moomu nu xam lan lan doon doye ba nu wuy si ko dan doon woo lii lépp ci woote la woo di ni Serigne Touba ngeen bëgg xam moom ngeen war a xam sëriñ Touba moo woote yàlla dogal na ñëw nañu. bi nu ñëwee itam gëmanu andi ak bëgg sëriñ bi kon lii des fii mu ne di thème bi nga xam ne nii moo wara a euh, euh, tasaaroo ci àddina mooy sëñ bi woote bu yàgg ba tey nuyu bu yàgg ba tey war nañ noo wax kooku bi mu woo lu mu nu doon doyee li mu nu doon doyee mooy thème bi fii mu ne ñu war a xam kan mooy sëriñ Touba ak bi mu wootee ba nu ñëw te gëm ko daanaka waarootunu euh, ndax waaru noonu waaroonu indi fii kon li des mooy kan mooy sëriñ Touba ak lu mu nu doyee woon ci liggéey bi bu boobaa danañu fekk ni lim du doon doyee mooy dafa gis lu lu xéewale te mooy borom bi subhaanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dina joxañ ni xéewal gi ma gis mi ngi nii kaay leen nu bokk ko moo tax mu woo na ci yàlla woo na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fal xaqu batul abdi bi tawxiidi wal fiqi an tasawufin majiidi muntahi jën masab ahli sunna ma al jamaati wa tilkal junna wax na ni dëgg laa leen di woo dëgg gi ma leen di woo nag mooy li yàlla digle ngeen jaar ci li yonent bi firi ngeen jaar ci te ànd ak nit diine yi ànd ak lépp loolu moom moo feeñ ci bi ma duggee ci saal bi bayit yi ma jëkk a gis yëpp loolu lay tekki ndaxte gis naa fi kullu biridin yuridul murida li hadratillahi walan yaida gis naa loolu gis naa ba tey euh, wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illa allahu kon wooneenul ci ak bokkoo woo nañu ci ak bennoo nu àndandoo doon seen sappe jaar fi rasulullah doon jaar lii rek leen doon yàlla wuyuloo وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي